lii gi def ñuy wax noonu la Yeesu juddoo maryaama ak yusufa ñu ngi doon ragal ay noon seeni noon te ñu ngi doon ragal ñu rey xale boobu tax na benn malaaka wax leen ñu daw ca dëkk bu ñuy wax Égypte dem toog foofu ab diir bi ñu nekkee foofu nag bee waxtu bi ñu waroon a dellusi si Nasaret jot Yeesu ñu daldi jóge foofu ñibbisi nasaret yeesu daldi di mag ci jëm te di am xel te yiwu yàlla nekk ci moom mu neex yàlla te neex nit ñi bu mu demee ba ak ñaar maryaama ndeyam ak usufa daldi ànd ak ñoom jérusalem pour màggali yàlla bu ñu fa nekkee nag ba waxtu bu ñu waroon a ñibbisi jeex maryaama ñu daldi ñibbisi bàyyi fa yéesu yéesu nag mu ngi woon ci kër yàlla ga ci digg sëriñ ya ak xutbakat ya te di leen déglu te di leen laaj ay laaj yu bare te xóot lool ba sax sëriñ yi ñu mujj a waaru te jaaxle ci moom di laaj ne xele bi fañ la jóge ak xam-xam yu yaatu yi yéesu di mag di neex yàlla di neex nit ñi